privatisation bi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci kaw ujaa ji ci biir yëglekaay bi nag ma ngay soññu askan wi ngir ñu xam ne situation bu nu mel nag mi ngi tàmbalee foofee ca Arabie Saoudite te ñëpp nañu xam ne nag jamono ji coronavirus mi ngi circulé fépp ci biir Sénégal rawatina ci àdduna wërngal këpp yéenekaay bi ne ci téeméer ak ñaan fukk ak ñeenti test yi nga xam ne rek jot nañ ko amal ci kaw ujaa ci juróom-ñaar fukk yaak juróom ñetti yëpp nag amee nañu woppi coronavirus daal di koy indaale fii ci réew Sénégal ci jamono ji nag waa ministère de la santé et de l'action sociale ña ngay xam ne ne lépp lu luy ay matukaay daañu ko jël waaye ña ngay sàkku ci ñi di ujaat ñu bañ a amal ganale ngir bañ a lawal lii di feebaru coronavirus àddu jëmale ci beneen yëglekaay mu di Le Soleil dikk tey jii nag ci dakkal gi ñu bëgg dakkal lu jëm ci liggéeyu farine bi ñoom mëñee yi nag yéenekaay bi ne état bu senegal jamono ji nag ma ngay génnee yatuwa di dànkaafu ñi di mëñee ngir ñu amal seen liggéey ci ni ñu ko daan defee gouvernement bi nag di xam ne ne lépp luy ay responsabilité am dana ko jël nag yabal ay mission yoo xam ne rek ñoom ñooy saytu ndax farine bi doy na sëkk ci barab yi ñu koy soxla enquête yëglekaay addu moom it ci wàññite gi nga xam ne rek état bu Sénégal bëgg na koo indi ci njëgu farine bi yéene kaay bi ne état bi ma ngay déclarer la guerre ñii nga xam ne rek ñoo di meññee yi ñoom meññee yooyee nag dañoo xamle woon ne nag dañuy dakkal lépp lu jëm ci seen wàllu liggéey ndax mënee suñoo nangu nag juróom-ñetti téeméer ñu koy wàññi ci saagu farine bi te loolee nag da leen jural ay pertement lu ni mel nag waral ba jëwriñ ji leen jabootee daal di taxaw nag riposte di leen joxoñ baaraamu tuuma ci taxawaay gi nga xam ne rek am nañu ko jamono ji moom jëwriñ ji ma ngay xam ne nag ne lépp luy ay vérification amal ci biir minoterie yi vox populi addu jëmale moom itam nag ci coow li nga xam ne dox na jamono ji ci diggante état bi ak ñii di meññee yi bi ne état bi jamono ji ma ngay defanteeg juróom-ñaari meññee yi nag ginnaw bi mu leen tuumalee nag ne seen taxawaay bokk na ci jural ay jafe-jafe nag ñii di askan wi jëm ci ni ñu war a jëfandikoo mburu mi fii ci réewu Sénégal waral ba nguur gi di sàkku ci ñoom mu ñu daal di sàmmonte ak lépp loo xam ne rek mooy njëg yi nga xam ne rek teg nañu ko jamono ji ci taabal ji gouvernement boobee nag ne dinañu jël seen ay matukaay ci képp koo xam ne rek lànk nga xam ne moom la ñu jël béy di aaj moom di sàkku ci état boobee nag ne dañoo am ay jafe-jafe Ousmane Mbaye mi nga xam ne rek mooy patron bu Dangote nag moom ma ngay xam ne ni njëg yi état bu Sénégal teg ci taabal ji mënee suñ caa tënku jamono ji ngir jaayee ko njëgu ciment bi Franck Bravard di ab meññee moom it fellu ko ne lu ñu mel itam nag moom la ñu nar amal ci stock de blé ak farine yi nga xam ne rek am nañu ko ci biir usines yi le temps moo yëgle kaay ne lu mu ci mënti doon daal lu jëm ci wàllu farine bi nga xam ne rek meññee yi bëgg nañoo dakkal production bi nag état bu Sénégal ma ngay amal ab bras de fer ci seenub diggante l'observateur ne ko coow li yëpp daal mi ngi bàyyeekoo ci njëgu farine bi nga xam ne rek moom la état bu Sénégal wàññi te meññee yi ne duñu ko dégg tey duñu ko dégg ëllëg waaye état bi nag ma ngay xam ne ni lépp luy ay responsabilité dana ko jël la jëm ci coow li nga xam ne rek moo dox ci seen digganteeg meññee yi àddu jëmalee ci Sud Quotidien yëglekaay boobee xëyee tey ji nag ci jongantey CFEE yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ak entrée en sixième atum 2024 yéene kaay bi ne lu toll ci 301 830 ci ay tuut tànk nag ñoo fas yéene amal boobee jongante lu toll ci cent soixante-dix mille deux cent soixante-six yëpp ay jigéen lañu euh, juróom fukk ak juróom benn yu toftal ñeen fukk ak benn ci téeméer boo jël nag ñoom ñoo ñëwee jamono ji nag ñoo nekk ci centre de vote yi nga xam ne rek seenub lim toll na ci mille neuf cent soixante-dix-huit juróom benn fukk ak juróom-ñeenti candidat yu toftal juróom-ñaar téeméer ak fanweer li nga xam ne rek moo di ay kayitu juddu wuute ak lim bi nga xam ne rek moom la ñu nemmeek ci at yi ñu weesu mu toll ci fanweer ak juróom-ñeent yu ñeenti téeméer ak ñeent tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak réew mi sport mi nga xam ne rek ma ngay wax ci mercato bi di wàllu jënd meek njaay mi yéenekaay bi ne Pape Gueye ma ngay annoncé nag départam ca Olympique de Marseille ci biir yëglekaay bi la ñuy des ba tey ci wàllu làmb Siteu nag moom ma ngay xamal Modou Lo ne ko am na adversaire de taille sunu làmb xëyee niki tey jii moom itam kàddu yi nga xam ne rek Gris Bordeaux yëkkati na ko jëmale ko ci kaw Ama Baldé moom ma ngay xamal doomi Faalaay Baldé ji nag ne ko man balaa maa tàmbali ab combat faaw ma xeex ba noppi mbokk yi léegi noonu fës ci yëglekaay jàmm ak jàmm